soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak àddina wërngal képp su Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo Kartong ba na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekkat ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia. Supersonics Money Transfer ñu ci ñett fuk ak ñent deka ci biir Afrika ngir jox leen melowa yu gën ci jottum xaaliss bi nga xamne kenn duko lam lamé laamee leen ñu ci Google Play Store wala App Store ngir mëna bind ci suñu app bi di Supersonics Money Transfer app da ngeen mëna a ci suñu money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonics. Daliba. Ago, Moro. bari biɓe ma ɗiyari mbakel e eh, konkoto murkotole konkoto fuuto koto purkoto mo toñade manninkol ko sila koto wakata sate koto to prince kuyatele mamantanan entertainment wala ɓe ɓe mba kala sénéga diane hoore ka fo mais kora awo ata kala poratenti mbe korontoro kanne ko ala karan fa janni won yeñin kora ɓe mba min da kanake gambiya jang sato dawo da e tata jen kamone ka fo kora awon amma kan man ten kunno banko ka iko banko nyaton ko min keta adama baroti anala numo nyo fosli ye ñim ben kere kere sika ya dite la ka ke nyaton ko amadu kora wo fanan be gele don a jarotu fatu sonko bakaw kora sa. ni a jebe kumbola tumbun kototo e salon ko dal ko longo sa kora man ke bi fenti baraka ha cosaanno ya naa leen ba tey gisaguma te président Barrow war gis lekkati séeréer yooyu tooña nit ku nekk nit ku li nga doon bugga naa ñu may ma tuuti nag dafa am loo xam ne wax nañ ko fi waxaat ko démb dama ci bugg a sànni kàddu tuuti kii tëgga ndenda bi dam bàyyi tëgga bi wax ngeen fii mbiri nawet bi ale sama la kuwo kumboo jàng wax ngeen fi mbiri teret bi ale teretoo fana la kuwo fo waaye pour wol leen kan mooy Adama Baro am na loo xam ne day fa jëf ak ñun jëf ko te xamu leen ko tey ma wax leen ko ci terrain bi saa faale jumalen président baroti kadu ay kuule tamandi ñin tere to kuolan se o faale asalo réewi Gambie am ngeen looleen musuto am depuis nguur sosu gambia banko ale fenne soto birin gambia lota jang anen ma min soto ñun ñep d'accord nañ ne adama ku am yermande adama ku baax la xol bi dafa baax ñun ñep d'accord nañ lool ko president baro molete min bala fa molem hina molem angani yo seniata du sacca du tapale ate suñaro kala ate tapale ya du lekalu momut ate fen domo la min mankala so addinaam yëpp liggéey lay def daan dooleem alla duniya bee aya euh, tarole bo biñ commencé politique bi kabri a ñim politique dati lim ci def ci alalam ay min dundi ja fawla na balaa balaa moo falu janning abe président ya sotala ku gëm yàlla rek ko man moo mi danke ne ata alala o doon na se woke bi mu toogee léegi kabri a siita fo bii li muy fere aka min dépasse nit baax di ko may mu koy jox nit ñi mool minu ka maa koy moo kendo la fana ka o seyndi mool kan benn président defu ko Gambia président maa ki Gambia kono umpul leen yéen ñëpp woo maal kumpa bi feebar bi jotee ako ñin covid 19 kabir nga dumta docteur yi ñu ne docteur ol ko nan di ñu tëju si néegi mool ye sabati suwol kono ye si feebar bi bu tasaaroo kaatu ñin covid 19 naa janjanta gerte gi naka lañ koo mun a def. Eh, pour ñu jëndal baadoolo yi gerte gi ren bu bugguma benn note ci réew mi. ba gars yi demee d' accord ci prix. ñu ne ko daal gerte gi lii lañ ko doon jëndee lii lañ si mën a yokk lii lañ koo mën a jëndee ren. président Baro xool yëfi xoolaat ko xool ko. président Baro koolu jiibe a jiibe kote ke. mu ne ñu maa ngi doon oote meeting yi alxames. ñu koy kon la. cabinet alxames la dee mit. ako ministre ka bengo ke mu ne dañ mu ga this ñu mit talaata ndax dafa am lu xam ne dafa jàmpa ci réew mi. te li ma gis doyut ma dama buga ñu régler ko. ako haaji terem ku doole mu ne ñu balaa ñu wax leen traite bi laa ñu wax gerte gi ngeen ma jox prix man doyu ma neexuma akoy kon ñamanan fewo fen kacala aletiya damin naatiña jang aman kontaan baa doolo yi benn yoon la ci am mi mooy li ñu am buñ ko jaayee mooy seen fay ako sene laalu siña kilin ne ikeela kalifa joomuta wolem senoti tereto waato ni yo wosode weer bu dee ngeen fayeku alto o kalifa ali allah jooso bon nag du ma si mën a d'accord wotonte sonna ñin damin ali allah mu ne ministre of trade Sidi mu ne ko ministre of agriculture Ami Fabure mu ne ministre of finance Mambure Ndiaye eh, may naa leen fii ba ëllëg ngeen wax ma prix bu bees ni ñoo gerte gi mu ngeen indil ma ko te mu nekk lu ma doy te lu mun a doy ba doy laa bëgg ngeen wax may naa leen nag fii ba ëllëg ngeen indi aliya kaca nga jibe sene lalla da diog la karola se mune natino mi yi bañ toge meeting ministre yo xamne ñu xarañ sen liggey ñu man sen liggey ñomi ako ñi ministre lo yela do ko no isobe yata adu lonna le kabri sita bañ toge one hour lañ meeting isita montoro wate kilin yow bengoke ñu dakko na gerte gi war nañ ko mën a jëndee twenty three thousand dalasi tonne e gooti o ñinannda eɓe sonnale ka euh, tonne o ñin san dalasi wuli monin saba toni wortowle maanaam price yi daaw bi ak ren kato a mununta ko serundani ñinan war nañ see mun a yokkatu ka jëndee si yow xaalis boobu bu engrais jotee yaa ngi jëndee saaku engrais ñaari junne loolu la ko nguur gi la ko jaayee juróom-ñaar téeméer ako ni jambandi sam waato siitan man sa kunna ka sam ɓooto wuli fura la bare aka naatala ita sene layen loolu yëpp nguur gi béy la ko wo be man sa kunda yeeso wala te xam ngeen ne ren at bi dara doxul covid bi moo tax yàlla ne ko ñinam fankoon safaro kumantama bon nguur nguur gi nguur gi bu leen di wax loolu woto ni man sa kunda pour lu leen dimbalee bu engrais jotee ngeen mun a am engrais bu yomb i ka ñim faale ne pour Serigne Sama ni jambandi bu fekkoon ne bunti koom-koom am na ci réew mi ni a tara fankoo la bunda la soto doo soto doon nguur gi mën na jëlee foofa jox leen leen xam ngeen ne li gënoon a yóbbu réew mi ci économie bi mooy li jëm ci mbiri tourisme gan ñi ñëw ci réew mi mooy yóbbu banque si tam ñu mun a a liggéey ñooy tax télécommunication compagnie yi mun a am xaalis di fay taxe loolu yëpp nag bu amul ci réew teñ bokk réew ta bankola daaw président Baro jël na ñaari téeméeri dalla si ak juróom fukk teg ko may leen ko pour def ko ci engrais bi ngeen man koy jëndee juróom ñaar téeméer engrais sene laalu banko président la man dalati koɗoto million keme fulani wulitan lulu ñon ay wole bondi pour que sénégal makoy no jambando soto bu leen mënee defal loolu nag na se wokke no alie yokkal leen gerte gi 28 percent a ah, ayetiya da fanal lafale kemo kono sidula mon nin sey ne leen ku ñu jaay la te abul noté dañ laa jox sa xaalis momo tata yelati yo samba noté ti je yalla ni dami bela ko do laale bulu wala ñama yena moom sam bopp fu leen neex ngeen balaa ngaa jaay nga gestu ko seet ëllëg lum la mun a jural o registration jotee januari ni registre wato sita januari na jëm ñëw registre am beddingol besina yela ñanto tayla kayto élection bi ñing ele carte ñu ko dee sàcc sa registration ba tapaleka ke koy ñàkkee ñuy tere doomi Gambia yi ñi nga xam ne óor nañ leen duñ leen sànnil i ka ko yaa ñu leen di aaye naan bu leen leen ɓe mbaɗi koye kana o soto fu sen mbokk nekk ɓe mbaɗum ɓe nañ ñëw jël si carte yana yela carte o soto loi bi moo ko jox banko loi le o diyalla du luñ leen sarax a manque saɗa fenti du luñ leen may il manque sooru maa ngi gërëm nag mbettentiro kela waa jookaadu bu baax jookaadu mool la fanfanke di gërëm réew mi lool nga bankoo moolu tentu ndax biñ commencé démb ak tey kunum wulita ñin taamoo la wax yu baax ak jëf yu baax yi aadama def te feeñ na si réew mi kuma kenn loolu ni bankoo président ye baara ñimaan munu ke bankoo ka lo lu baax loolu muy def aka wo baara kendoo minu ke Gambie kono nit ku ne bëgg nga lu baax moo moo la ta fen kendoo la waaye bu ñu bu la defalee lu baax ba ni mooy ba ngaa laaj balaa ngaa laaj ci waa leneen bari janni ko ci la njëkk a defal tentu foro ay baara ñi ma min nga soog a laajte lu ees ndax réew mi emut fii rek banko man